fii si kër Mbaye Fall Tol Diaz waaye nag bokk si daayira Ahlou Nabi ñu daal di koy fal euh, présidente aca yow mi may doog a teru yow mi may doog a bàyyi nopp yaa ngi nag euh, sa biir plateau spécial gàmmu fii si kër Mbaye Fall Tol Diaz initié par imam Adama fay ñu koy ndokkeel bu baax a baax di ko ziar di ko jox euh, wàccuwaayam ana tuwarkal la waaye nag bi ñu jógee si sama yaay Aminata Sarr dañuy dalal nag suñu jëwriñ tubarkal la maam Abdou Dieye porte-parole des jeunes daayira Ahlou Nabi ñu ziar la bu baax baax papa ba nga jam assalamu alaykum mais sa bi taaru na tamit de ah, ah taalibe cheikh lu tax ngeen bari tiitar nak ñu leen mëna mel ndax fiñu bokk tax cheikh lu tax ngeen bari tiitar non du bari tiitar sax ah. waaw fiñu bokk tax rek fa bokk ni rek nga mëna mel ah. waaw bu ko defee ñuy sant bu baax mhm. euh, di contane bu baax ci soxna Aïssa wala soxna Sasa buñ ci wax rek soxna Aïssa soxna Aïssa tay comme que gàmmu la bay ñu kiwol ko rek soxna Aïssa soxna Aïssa contane nañ bu baax jërëjëf. di leen ziar yéen ñëpp di leen bëggee. ah di kontaan bu baax ci lii. mu rafet lool wax dëgg yàlla si BNTV Sénégal. Mm-hmm. yàlla na yàlla yokk leen. tey nag ñu nekk si gàmmu gi nekk douzième édition nekk fii si kambay Mbaye Fall Tol Diaz nekk ak lu Nabi yow nag nga nekk porte parole des jeunes ak lu Nabi da gannaaw loolu dañuy lay laaj si gàmmu gi mm-hmm. nekk seen douzième édition ana gàmmu gi kan ngeen ko sas waaw gàmm gi wax dëgg yàlla léeg mu yàgg ndax man defe naa bu ñu nee ni ñu ci douzième édition li ma jot a fekkee man defe naa maa ci ay six années wala sept années waaye jamono yi ñu koy sos. boobu fekkuma fi. waaye li ma jot a fekk maa ngi ci ay six ans wala sept ans yoo xam ne sama kanam lañ koy defee. mu nekk loo xam ne. sag la ci kër Mbaye Fall. sag la. Mm. tiitër la ndam la. Mm. pour kër Mbaye Fall mais. pour julliti àdduna pour dina lislaam ñëpp sag la it ci kër Seydil Hadji Malick parce que Seydil kër Seydil Hadji Malick nii lañ bëgg muy mel muy yokk te du wàññeeku te loolu nag kenn waralu ko ku dul imam Adama Faye ndeysaan muy sunu kilifa mm-hmm. di sunu sëriñ mm-hmm. di sunu wayjur mm-hmm. di sunu baay di sunu lépp ci côté yëpp mu mel ni mënoon na leen a xiirtal si leneen waaye nag daf leen a xiirtal si diine ndax ndaw ëllëg moom mooy doon yi magum ëllëg mu xiirtal leen si diine ngeen ñëw bokk si daayira bi mu doon loo xam ne lu raar la. ma gis fii si say mbokku jeune yoo xam ne yéen ngi si liggéey bi. jafe woon na loolu pour ñu xëcc la nga ñëw toog si plateau bi. mais nag li ko jar rek moom moo ko jar. ana naka ngeen koy dundee yéen ak famille yéen ak seen yaay ak seen papa yi fii si daayira ak lu nabi waaw niñ koy dundee soxna Aïssa ni ko jullit di dundee rek lañ koy dundee parce que jullit amul lu dul diineem jullit amul lu dul lislaam jullit amul lu dul nekk jullit xaqan jullit amul lu dul yaru am diine am respect di dox ci lu neex yàlla loolu nag imaam fay moo ñu ci éduqué def ñu ci lu bëree bëri ñu koy sant di ko gërëm bu baax ah bu dee cadre liggéey bi nii rek lañ ko mos di taxawoo waaye moom moo ñu ci may fit jàpp nañu ci ak sunuy mag ak sunuy grand yoo xamante ni xëy na mun mënuñoo yegg si fii mais ñu ngi ci biir ku si mel ni ñoom alaaji ab yi nga xam ne waa Joal yi parce que am na ñoo xam ne ñu ngi jugee ba Joal Fadiouth ñii jugee Moundé parce que Imam fay mu ngi cosaanu Moundé Moundé Moundé mooy dëkk cosaanam wala baayam nekkoon mm-hmm. yàlla nag def ko ah ni jamono di doxee rek ni dëkkul fenn ba mu xëy tey nekk fii mm-hmm. mu nekk sagu kër Mbaye mm-hmm. dañuy ñëw waa Suwal Fadiouth di nga xam ne ay magam ñu ngi say ak ay jarbaatam yëpp ku si mel ne ñoom alaaja ñoom aadama ñoom ñëpp ak jigéen ñi ñoom naa xadim maire aji bi nga xam ne mooy magam bu gàmm jotee ñoom ñëpp ak maire Ndiaye Ndiaye lu ñu am dañ koy bàyyi ñëw teew ci bis bi. nga nekk porte parole des jeune fii nekk si euh, daayira bi. Mhm. mu mel ni porte parole bi yomb na yombut. parce que nga nekk xale ñu jiital la si ay kanam yu mag. mu mel ni yomb na yomb porte parole bi dañ la ko fal wala dañ laa xool rek sa charisme ak sa caractère ñu far la porte parole des jeunes. waaw soxna Aïssa. waaw <laughs> ah. ay na porte parole bi sax du ma sàkku man. ndeysaan du lu ma sàkku. Mm. xëy na ñun xale yi daan nañ faral di toog di waxtaan di def daayira. Uh-huh. def guddi àjjuma des fois bu ñu defaan daayira ba pare. Uh-huh. mu ma ah di jëloon micro bi nga wax. ndeysaan xam nga ñu nekk uh-huh. ci di ci jàng. Mm-hmm. ci di ci gëstu lu bëree bëri. Mm-hmm. ba yàlla def xam nga nit moom booy wax ci kanamam te li ngay wax doy ko ci wàllu xam ni ngay waxee mun na la wóolu jox la loo xam ne sax na yéen la ah xëy xëy rek des fois bu ñu amee lu ñu wax seen jox ma Abdou mu ko loolu moo indi baatu yaay njóogu faama nag loolu mën ta ñàkk voilà naan ko yaay njóogu faama waaw walaay loolu moo indi baatu ndeysaan porte parole bi uh-huh. bu ko defee loolu noonu nag mooy dox tey ba yëg si fii mm-hmm. ba bu ñu amee kàddu lu si ëpp rek ñu xalaat la mm-hmm. mais loolu li ko def mooy boo déggee ñu ne porte parole jeunes yi parce que daayira dafa am ay mag am ay jeunes. dafa am axlu nabi. axlu nabi am ibnu axlu nabi. am ibnu axlu nabi. ah dafa am axlu nabi am ibnu axlu nabi. axlu nabi programme noonu lay ibnu axlu nabi daa amee programme mm. mais bëgguñ ko séparer parce que lépp. lépp ci liggéey Imaam Faye la waaw moom moo yar xale yi def leen ci loolu ba ñoom ñu bëgg sax. Mm. di def. ndeysaan di ci góorgóorlu. Uh-huh. su ko defee nag ka jiite ibnu axlu nabi. Mm. président yi mooy ku ñu wax Arouna Anne. tey ci kàddoom laa fi ñëwee. ndeysaan ñu ziar bu waaw président bi mm. mooy soxna Abi fay non présidente bee waroon a ñëw. xam nga man xam nga man j'aime les femmes. waaw présidente bee waroon a ñëw ndax man si suis féministe góor ñi ñu ngi bëgg a bali si plateau bi xëy na xëy na ba tey présidente bi. <laughs> xam naa ne sax bu fekkoon ne temps bi dina lañu ko may uh-huh. boo ko mënee lijjanti mën naa ñëw balaa plateau bi di jeex mais bu ñuy wax mm-hmm. ci turam la ñuy waxee muy abi soxna abi fay mm-hmm. ak Arona An li nga xam ne ñoom ñaar ñoo jiite Ibnu Ahlu Nabi acca lan ngay wax sa mbokk jeunesse yi nga xam ne ñi ngi si biir daayira bi lan nga leen di gën a ñaaxaat bu nekkee am na kaddu yoo xam ne da leen koy dénk fii si daayira bi waaw li ma leen di dénk laay li ma dénk sa bopp rek laa leen dénk soxna Aysa mooy nit daal loo mën a nekk rek nay rafet te mu doon lu dëgg. na na dëggu. Mm-hmm. na rafet. na mm-hmm. ànd ak yiw. wallaay na ànd ak dal. Mm-hmm. na ànd ak sellité. na ànd ak xam li nga nekk mooy lan. maanaam lépp loo xamante ni lu ñu lu ñu nit di xëcculoo di ko wuti. lu mel ne neex see kër Seydi El Hadji Malick. war nga fexe ba buñ la ci fekkee rek. xam ne kër Seydi El Hadji Malick. mu doon lu rafet waaw. Uh-huh. waaw parce que boo degee ñu ne sagal si kilifa. Uh-huh. du ay sol ay yére du def ni déedéet sagal si kilifa mooy xëy na jikko ñu soxla sa kilifa. Mm. mu di ko comprendre di ko jàngale bu ñëwee si njaboot di fekk ko fa. jikko day taaral borom voilà day taaral borom. moo tax yére du taar. Mm-hmm. sañse du taar. wallaay leneen du taar xam lan mooy taar mooy xol ak dal ak yiw. am naa mbégte dalal la si plateau BNTV Sénégal ana lan ah. ngay wax mbokku téléspectateurs yi. ñu def tàkkoo bu dul tàkkali ba déwén ak jàmm incha kontaan ci BNTV Sénégal. amuñ seen fay. Uh-huh. di bég bu baax. Uh-huh. di wax li ngeen def nii. Uh-huh. yàlla na dem ba ñu koy suivre ci àdduna bi. amiin amiin waay amiin waay. parce que yéene nañ leen lu ëpp lool ndax. yaa njóogu faama loo dogg mu daal di am. soxna Xas <laughs> euh, Bàcc mii man bi may ñëw fi li ma la wax def naa fi six ans wala te man ci programme bi laa ko fekk. te nga xam ne yàgg na ak paa bi. wallaay nit ku am kóllëre. kon lu mel nii. jomb ko jomb keneen ko mel ni moom. wallaay su ko defee moom ñu koy ñaanal. Mm-hmm. moom sax xam naa dañ koy bàyyi yàlla. parce que yàlla rek moo ko a. a wax daal uh-huh. ba ilaa yow mi. amiin amiin amiin amiin yàlla ba fi ñuy dégg yu mag yi. amiin ñu dégg leen ci seen kanam yéen. amiin amiin ci kàttanu yàlla ak mbaam soxna Aïssa. jërëjëf jërëjëf Mame Abdou Dieye nekk porte parole des jeunes Ahlou Nabi fii nag si biir gi ba léegi ñu ngi si gàmmu gi Kër Mbaye Fall Toll Jazz